Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér di wóor. deuil national bi mooy mbuur bi donc voilà mu ngi noonu et mais l'immigration clandestine bi. waaw xam nga euh, certes loolu mënuñ cee ñàkk bañ a wax waaye nag xam nga dañu nekk ci gàmm gi mm-hmm. mais sant yàlla rek ndax euh, loolu moom du ñu def lu dul. diis problème bi parce que les les responsabilités sont partagées. entre ñi nga xamante ne ñoo ñu jiite. Mhm. ak euh, ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy société bi. lu mhm. dëgg parce que ndaw dafa am fa muy toll ba loolu yee war a yegg ci xelam. donc bu bu fekkee ni que euh, lépp yemb na nag ci ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk secteur privé bi di def euh, li nga xamante ne moom mooy di créer ay emploi defe naa loolu yëpp bu gën a yokk. ci ci li nga xamante ne moom mooy ni euh, ñu dénk réew mi loolu lu ci bare bare bare bare dina wàññi ci immigration clandestine parce que ñun duñu ci noppi di wax duñu noppi di ci ñaax ñi nga xamante ne euh, euh, ñoom ñooy population bi wax kese mm-hmm. lañu ci mën wax la ñu mën ak sensibiliser waaye nit fi muy toll ba dem loolu defe naa gouvernement bi ak ñi nga xam ne ay nit ñooy def moyen yi tax nit ki du dem bay wuti loolu parce que ñi ci ëpp ci ñoom koo ci wax mu ne la sama yaay ju laa waajur laa bëgg dimbali sama yaay laa bëgg a dimbali sama papa laa bëgg a dimbali wala seen nekkin moo dul adéquate ba tax na ñuy nekk ci situation yooyu donc nu ñu mën a def rek pour solution bi ci loolu ah, ah, defe naa du luy mettee dañ la nag parce que état d'esprit la ki nga xam ne yaa dem xam ne foofu dafa metti ak ki nga xamante ne demagul dalay naan kii li muy wax ay wax yu muy sànni rek la donc euh, euh, dañ ci gën a ñaaxaat suñu bopp ñun ñëpp rek ah ñun ñëpp fexe seen nekk rek wax dëgg yàlla comme président neen nañu yoole nañu yoole ah, daal di doxantu dajeeg yow fi nga xam ne moo di euh, kër Abdoulaye Ndiaye Ngalgou seen diggante yéen ñaax Abdoulaye Ndiaye nag wax dëgg yàlla boo ma laajee suñu diggante dama ciy sawar ndax mm-hmm. diggante càmmiñ ak jigéenam la mm-hmm. diggante baay ak doom diggante mag ak rakk diggante mm-hmm. wax dëgg yàlla nit ak muy nit ku baax waaw nit koo xamante ne li may wax li may tàmm di ko wax à man ak ñoom ñoo bokk groupe. dëgg la waaw man samay papa ay àndal donc muy ay nit ñoo xamante ne wax dëgg yàlla euh, ay nit yu am yërmande. ay nit yoo xam ne nit yu tabe. Mm-hmm. ay nit yu jar a àndal ay références. donc euh, damay am satisfaction gàmmu jot ma ñu dox li nga xamante ne moom mooy tànk kóolóor yi nga xamante ne bu màggal jotee daf ñu koy def ci. Mm-hmm. ñu gis ne comme ni ma ko waxee nee naa euh, femme nga boo xam ne da nga yëngu ci wàllum entrepreneuriat ndax yemoo rek ci micro bi. yaa ngi ci yeneen ak yeneen ak ah, ku la xam-xam ne bu màggal jotee gàmmu jot dootoo amati temps mm. rawatina nag événement religieux yëpp sax laay wax ci li nga xam ne nag mooy di sa liggéey bi ngay def bu weesuwee animation bi ngay daal di def ah, bâche yi décoration bi ah, et cetera et cetera jour bijou nan la dundee gàmmu 2024 ak li nga xam ne nag moo di ay partenaire am euh, gàmmu dam 2024 dafa ala doome mm. xaw ma euh, gàmmu gee neex du ma ne neex ba mu ëpp sax waaye wax dëgg yàlla sant nañ yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax euh, damay wax à chaque fois ci domaine bi nga xamante ne moom la ñu nekk laa demande elle est très forte par rapport à donc du euh, du ñu mën a satisfaire ñëpp sax waaye dañuy def kéem kàttan lu ñu mën ndax yenn loo attanu day ñaawal sa doxit mhm. nga def loo mën rek mhm. pour clients yi nga xamante ne ñoom la la yàlla bool ñu am satisfaction. dëgg donc loolu bokk na ci euh, gàmmu ren ni ñu doxalee. Mm-hmm. ah équipe yi tas. ndax gàmmu bokkul ak màggal màggal ñëpp dañuy nekk Touba. dëgg di tas ci secteur yi mais gàmmu ñii dañuy nekk Kaolack ñii nekk dakaar ñii mm-hmm. nekk. Euh, Tivaouane ñii nekk euh, fu nekk. Mm-hmm. ñii nekk Mbour donc affaire bi day tas. de telle sorte que c'est très compliqué gàmmu mooy gën a compliqué. donc mais dañuy sant yàlla rek bu ñu yàlla dimbalee boole ñoo ay techniciens ak équipe yoo xamante ne à chaque fois dañuy matale li nga xam ne mooy liggéey mm-hmm. donc euh, sant yàlla la boobaak def na léegi defe naa premier jour buur bi ba tey ñu ngi jaabante fi nga xamante ne moom mooy Tivaouane mais lépp impact client yëpp kontaan ah te defe naa ni loolu lañ ci jubluwoon te faaw nga jaar fépp faaw nga dem teg ñëpp faaw nga dem xool liggéey bi kenn ku ci nekk ci ñoom fi mu toll dañuy sant yàlla bu baax macha allah mu ngi sant yàlla bu baax mais dafa euh, Tivaouane gi nga teew ren dafa am leen luy spécial euh, ci ñoom di ndam ci islam muy jumaa ji nga xam ne enfin pare na ba ñu joxe clé waaw sant yàlla la sant yàlla la euh, moom mu bokk ci jàmbaar yi nga xamante ne it ñu ngi ci ah moom Ablaye Ndiaye Ngalgou donc euh, satisfaction lañ si am moom laa lay wax rek te fexe bi euh, ñaan yàlla si tànk yi nga xamante ne ñoom ca la ñu nekk ñu fexe ba ñun ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla ñooy ay ndaw war a topp seen ginnaaw ñu nekk ci donc dañuy sant yàlla bu baax encore une fois de plus ah ndax wax dëgg yàlla néegu yàlla bi ku gis xam ne wax dëgg yàlla satisfaction la ndam la ci yoonu lislaam ndam la ci Sénégal ndam la ci eh, ñi nga xamante ne ñooy képp koo xamante ne yaa ngi wuyoo taaliba Cheikh. Mhm. sant yàlla bu baax Aïcha merci beaucoup ñu ngi lay ziar. merci beaucoup Nabou. Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te